jerejeuf pap kaddu yi amna na solo suñu mbokk internet yi ku deg waxtaan yi xamni ku xam la muy wax moy wax muy suñu papa alaji Papa jeng papa ginaaw biñu waxtane ci lamb dañuy del ci tuuti ci tolluwaayu réew mi ana ban jangat nga am ci diggante opo li dox ci diggante opposition bi ak parti au pouvoir. eh boy ak ngi may ci lo xamni <laughs> ci lo xamni je man démarque

ñi dul politique ñoo ëpp ñuy politique ñaamul amul carte de parti bokkuñu ci parti ñoo ëpp ñu am carte ak ñu bokk ci parti yi te boo seddee ñi ci ëpp seen avantage rek la ñuy seet ak seen njëriñ à chaque fois bu ñuy fal nit dañ ci am yaakaar muy bu bi ci biir peuple bi ci boppam dans sa majorité écrasante dañu doon séntu en général dañ ko gis ba dañuy découragé loolu moo tax mu am ay changement perpétuel mhm. te changement yi tamit à chaque fois bu ñëwee la nit ñi daan jàmbat rek la ñuy jàmbat mhm. mais je crois que ak koom-koom yi nga xam ne am na ci réew mi mhm. ak li génn ci suuf si ak li nga xam ni tamit am nañ ci yaakaar muy pétrole beeg gaz beeg yooyu yooyu def naa ne war na tax ñu changer mentalité yi cest à ñi nga xam ni ñoo jële ñoo jël pouvoir bi ñu bañ rek seet ci ñi ànd ak ñoom ak ci ñi nga xam ne ñoo tax ñu falu pour ñu jiite réew mi mm-hmm. réew mi dafa am ñoo xam ne dañoo am xam-xam mm-hmm. ñoo xam ne dañ ko jàng ci université yi ci école yu mag yi ak ci bërib yu mag yi mm-hmm. ñu mel noonu bu ñu jëlee réew ñoo ko war a diriger puisque man li ma jëkk a jaaxal mooy naka ngay jëlee réew di placer nit ñi selon leur position politique te réew boo ko jëlee ñi am xam-xam ku ci nekk dans ton domaine da ngay seet ka ca mën nga def ko boo demee Abidjan léegi poste direction nationale appel d'offre

nga jël ko sedd ko sa waa kër ak say xarit bàyyi mbooloo bi nga xam ni fal nañ ko xam mhm. nga loolu nañ ko seet boutique dafa war rafet mhm. ndax buñ la jiitalee mhm. jox la ay moyens yow loo def rek moyens yi ñu jox a tax lim ñu defal mais liñ euh, ki ñu fal lim ñu defal liñ ko defal mu ëpp jox la lu ne gàññ ñu lépp sa lañ ko teg def ci yaay def lu neex yaay fal yaay Folli, ya yaay jël yaay jël ku la neex mhm. loolu buñ la ko joxee war nga seetaat sa xel mhm. xam ni lii yëfu gor la mhm. ay goro mo jox seen alal kon man tamit buñ ma gën gore la may def damay li gën ci ak li leen neex def ko mais du li ma neex ak li neex ñi ma andal ku àndul ak man ma xarab la ku andal ak man ma defaral la loolu c'est pas la jërëjëf papa jërëjëf papa kàddu yi na solo wax dëgg allah ñun duñu def luddul di la ñaanal yalla rek yalla na yalla guddal sa fan te wëral sa cër ndax ku amal njëriñ askan wi nga ku dégg ni ngay waxee xamni borom xel mu rafet ma sha allah moy wax papa dañ lay bayyi nga tagato ak ñi ñi sétan wa jëri jërëjëf kontaan na trop parce que may nga ma occasion <laughs> ma wax ak ñi nga xamni ñi ñu ngi ñuy déglu te ci jammu réew mi rek parce que comme li lay wax rek politique baxna lool mais nañ ko def ci jamm ak salam da gis nga sport li mu métti bu ñu paree ñëppay nuyonte entraîneur yi dañuy nuyonte joueurs yi fóonante lëngante génn te loolu amul ci politique te def ci war a am. dëgg la. sport bi niñ ko rafetalee teg ci ay sart politique noonu lañ ko war a rafetalee teg ci ay sart. Mhm. te sax moo am ci réewu nit ñu weex ñi. laay dëgg la boo seetloo États-Unis ak France ak. Ah, mhm. yeneen dëkku Europe yeeg yëpp. laay adversité politique bi da nga naan sax amul. laay lay sax bu président bi woowee ñëppay ñëw ku ci nekk joxe sa xalaat. Mhm. bu ñu toogee tamit lu yàgg dañuy gisante di waxtaan mais loolu gisoo ko fi. ku nekk dafa toog booram rek amul benn rapprochement te nag euh, euh, li naan euh, yéen bu diisee. dañ koy jàpp ñëpp ko war a toog waxtaan. mais du ma wax ñii ñii laay waxal. du ma nuyu kii ñi ñi xam nga. Mhm. du ma ànd kii yooyu yooyu rafetul. wallaay dëgg la ndax bu ñu la joxee suñu yëf xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk. Mhm. te gënoo ñu ndey gënoo ñu bàyyi. laay gënoo ñu judd te ko ñu xam-xam. laay nga xam ne lii mbiru yàlla la. Mhm. foofu nag yàlla daf la jox teraanga pour seet sa jikko. ndax xam nga yonente bi buñ ko falee gis nga jikko yu rafet yi nga xam ne wax nañ ko ci moom. dëgg la boo seetloo wax dara loo xam ne rek wax nañ ko ci ci ci ci doole bu mu jaay wala wala man la yàlla yónni. Mhm. wala may diw du def sax yooyu. ndeysaan. gis nga ba tay yi naan nit daf ko koy def mu baal ko. gis nga ba tay Euh, auteur bi mu amoon. exemple boobu nag lu waaye di jiite ci àll àddina da nga war a jël exemple ci yonent bi. ndax moom dañ ko yónni. pour mu yee nit ñi. waaye gisoo ko mu wane dara loo xam ne rek di ko mën a weddi. te nag ci jëf lañ koy àttee. donc je crois que yi nga xam ne dañu ñu jiite dañu am tuuti humilité. am respect. am yar. am teggin. am sutura. xam ne ñii ñuy jiite kat eh, circonstance rek la. waaye nag gënuñu leen. ay nit nag boo leen gënul booy ànd ak ñoom da leen di def nawle <laughs>